أحمدية Yesen Dine, الجمل أحمدية لا فيزيون فيتور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملاً ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا, يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلاً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن الله ممن من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا ما إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرايت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا تمهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا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 الحمد لله الذي أظهر من نسخة حقائقه الذاتية الكمالية نقوش العوالم والأعرام فأخرج من نور الجمع الذاتي أنواع الحروف والكلمات والكلام انزل من مقام الجمع والتنزيه قرآنا عربيا من غير ذي عوج جعلها معجزة باقية على وجه كل زمان ساطعة البراهين والحجج الصلاة والسلام على من هو فاتح باب الحضرة في العلم والعين واليقين سيدنا محمد الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه المتخلقين بخلق القرآن ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان ما بعد إنا بني تبرم إبراهيم سبحانه وتعالى التي أنت صلى الله عليه وسلم جاري لك تنين مع الصحابة يكتاب عن يكتاب تابعي أن يلا من الصلاة والسلام بفت دخلنا في ميزان حسناتنا يفرق بولم باب بكر نعم بولم جام يلا بولم جلد جاهنا من مصر صلى الله عليه وسلم جلسوا على دروس رمضانية سير مع القرآن في شهر رمضان المبارك نيوان تي سورة الكهف طلون تي آية كارن كرد ها ها آية كارن كرد يتم بلاتي دقنتي كارن كرد jëm 45 ان شاء الله borom di joxewat misal batay ci ay bi ñi jang jëm ci walum aduna من وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا من وضرب لهم انجلن صدل يونت بلاي واخ صدل لين موي فينتل لين ولا جخ لين مثل الحياه الدنيا مثال دندو ادنا من بو نكون مثال ان كما ان فمن ندخ مو خامني أنزلناه واتنينك من السماء مجوجتي أسمان إمو واتي جوجتي أسمان فاختلت به دل جخصوك نخمي نبات الأرض لنغا خاني موي غانتخوك سوف دي توي bi جانتا mi ginnaw ga asbaha gàncax gi daldi mujje hashiman daldi don mboob moy moy ñax mu waw bo xamni tadruhum da koy ëpp ar riyah gelaw yi diko baaje gelaw yi diko baaje ko baaje gauche ak droite mané ne li ñi jàng ci lol de moy nek na الله يلا dégg nga muqtadiran di boromu kattan ala kulli shay'in ci bépp mbir li mu ñu jàngal ci aaya bi rek moo di ne àdduna dund bu gàtt la diggante bi nit ki di juddoo di tàmbale di nàmp di nàmp ba ci yàgg mu daal di fer tàmbale lekk commencé saxi bañ lekk ginnaaw ga muy jàmm jàng raam ginnaaw ga mu tàmbalee taxaw ginnaaw ga mu tàmbalee dox ginnaaw ga mu daal di jekki daal di majeur ginnaaw ga mu dem ci marxala kuhuliya mooy am quarante ans yaram bi commencé di cant kattan gi la ca topp commencé di wàññeeku bala fa muy faatoo diggante bu gàtt la mu ne boo doon misaal dafa mel ni ndox mu wàcc ci asamaan ñëw jaxasoo gàncax gi gàncax gi xam nga day tooy day naat gis ko mu naat ci jamonoy nawet durant wuñ trois mois rek mois de juillet août septembre daanaka bu septembre rombe ndox ma daal di jeex bu ndax ma jeexee octobre gàncax gi day résister parce que suuf si wowagul moo tax mu continuer di verte boobu des fa ba tey waaye bu octobre xasee ba romb ba ñuy tàmbalee dugg novembre nga gis gàncax gi mu commencé di wow diggante novembre décembre janvier février mars avril fi mu ne ñu ci avril ah ba mai ba juin gàncax gi day bu dee ngay dem ba am faam booba deman ku leen ni fii aw tool la woon boo xam ni jamonoy septembre kenn mënu fee dox doo am foo jaar doo ko gëm la àdduna mel tamit ak doomu aadama doomu aadama tamit noonu la mel bu juddoo day day day doon xale bu rafet amulu bañ màgg di rafet ci diir bi muy tollu noonu lu muy gën di màgg rek di gën a ñaaw nag lu muy gën a màgg di gën a ñaaw ba keroog muy màgget nag akada lu muy gën a màgget kàttanam di gën a wàññeeku lu muy gën a màgget xelam di gën a wàññeeku lu muy gën a màgget capacité am ci léppam di gën a wàññeeku xol bi tamit kàttanu xol bi di gën a wàññeeku loolu moo tax mu ne ñu mu ne almaalu walbanuuna zinatu alxayaati dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا يعني المال ألل baax na lool wal banuuna ak i doom baax nañ lool waaye ñoom ñooñ li ñuy baax baax baax it zinatul xayaati dunia taaruk àdduna la rek fii ci àdduna rek la yam lu alal di baax baax lu doom di baax baax fii ci àdduna la yam alal jan moo baax nag mooy alal ju ñu dépensé ci yoonu yàlla doom jan moo baax mooy doom ji nga xam ne danga ko tarbiya yar ko ci yoon bi nga xam ne mooy la yàlla bëgg subhaanahu wa taala kon la fii des lan la mu ne wal baaqiyaatu saalihaat jëf yu baax yi des al baaqiyaatu mooy yi des as saalihaat jëf yu baax yi yooya xayrun mooy li gën inda rabbika ci sa borom sawaaban ci ki yool kon baaqiyaatu saalihaat mooy li gën ci borom bi subhaanahu wa taala ci ki yool وخير املا تمو گنجيك ميبت تاميت مانام كوي ميبت ني ميبت لي تودي الباقيات الصالحات دينغا ني الباقيات الصالحات ني تودي كو لي ني داف تي ني سيكار تي گيناو جولي گيناو جولي جولي بي وجولي با بار مو داف سبحان الله والحمد لله الله اكبر 33 فوا بول ام نيو ام نيو سبحان الله ترانترا الحمد لله ترانترا الله اكبر ترانترا بوكو بول نيو ييب مو جوخلا 99 مو تولك اسماء الله الحسنى دينغ لولا موي باقيات الصالحات ليغي خام تي تي تي تي ني براتيك بري باقيات الصالحات نك تي القران موي جيف يو باخ ييب رك ني نتالي صلى الله عليه وسلم واخ حديث fa noon ci ay nit mu ne leen xudu junnatakum ni ngeen jël seeni protège seen protection ñi ne ko yaa rasulallah ñun ci kan lañuy protégé wu ci kan lañuy protégé wu ci noon bu fi nekk la wala mu ne leen déedéet bal minan naar seen protection ci ci safara ñi ne ko waaw lan mooy protection wu safara mu ne mooy subhanallah إلى آخر الكلمات كن موي سبحان الله والحمد لله أمني نشهد أن لا إله إلا الله والله أكبر أمني ندف صيغة سبحان الله والحمد لله والله أكبر من لولو بروتكسيون لا في سفر نيكوي ديف غيناو جولي بو نيك كوكو دان ديف رك مو غن كو باي خيل غن كو فانك سنة لا جليت بو بوسال مالي مو ديف باقيات الصالحات 33 فوفو لول لا نيونتي بي جانغال ديف ñun nag ñoo sonal suñ bopp bu ñu jullee léeg nga gis ku jël loxo bi ne nii def nii def nii def nii def nii def nii loolu du sunna nga gis koo xam ne day jël daal ñaari baaraam yi daal di rëdd ci suuf warale ci gannaam daal def nii loolu du sunna léeg-léeg nga gis koo xam day jabatu ba nga defee ne sax ki mu dendeel dafa jàpp ne moom est-ce mu jàpp ne mu dendeel nit la sax wala déet jullit bu bëggee noppalu rek nay zikru lépp luy luy waral luy luy luy xaw a luy xaw a jege xuraafaat wala luy xaw a jege bokkaale gi yàlla rek na ko maytu man de benn mag jàngaloon na ma ne boo julletee del bind <clears throat> noox ak sa baaraam bu ndaw bi ci sa kanam nga raay ko ci sa nga def ko ni raay ko ci sa kanam <clears throat> li nga day day waral gudd fan way bima demé ba tàmbale ci yegné sama gudd fan gi dafa melni ci nuux bobu la ko acca la ko bayé te nuux yent yàlla nuux no turam turu no turu yonantu la léeg-léeg ngay def mbir mu yóbbu ci lenen rek bako surtout lo xam du sunna lu simple la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dafa jekul sax rafetul sax nit ñi tok nga toog ay nit di sànni ay loxo gauche droite ci kam mais danaan kii moom lu xew ak nit la wala dafa am day jat wala lu lu xaw a xaw nduru jat waaw xaw nduru jat te yooyu yeneen lay doon sax ki la koy dicté kay na la ne jàng ko rek boo ko jàngee yéene bi nga am ci sa ndeyjoor rek sa kanam lépp dem na namal amalu bi niyaati mais jaru indi loxo yi yeneen yeneen lay yóbbu ci jullit bi yooyu nag ñu di ci yar suñ bopp bu baax a baax a baax nga مني موحبتين يا رسول الله فك دنيا جيلي حديث بي ضحك جيلي شي صلى الله عليه وسلم من دانيا دانيا يونس بي من لم من لم من لم يسن القبر والبلاء وترك فضول زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد من أيامه غدا وعد نفسه من الموت قال الله تعالى يفرح عبدي المؤمن إذا بسط له شيئا من الدنيا وذلك أبعد له مني ويحزن إذا إذا إذا أقترت عليه الدنيا وذلك أقرب له مني رب سبحانه وتعالى وحدي حديث القدسي xam nga dañuy wax ne kenn du du mucc ci àdduna lu dul ki nga xam ne biiram dafa dafa dafa dafa rafet ci leeru maarifa ak leeraayu sopp yàlla biteem taaru ci teggin teggin ci lan mooy la muy def ci kanamu yàlla moom am teggin ci kanamu yàlla ak am yitte bu rëy ci yàlla ak li nga xam ne mooy taaru biteem not li nga xamni ne dominer li nga xamni moy mooy bëgg addunaam ngir cofeel gi mu am ci yàlla yi nga xamanteni moy taru bitem batay taru bitem nek lo xamanteni adab lay doon ñi jëlee ci yonent bi ñi laaj yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ne ko kan moy ki dëddu aduna kan moy ki dëddu aduna mu moy ki nga xamni man lam yansal qabr wal balad mooy ki dul fàtte bàmmeel ak akug ràpp mooy dee ñi xam ne du fàtte bàmmeel ak ràpp mu ne kooku mooy ki dëddu àdduna mu ne ko kon maanaam kon ki dëddu àdduna kenn du ko nattee ci ay yére ajuwul foofu mu ngi aju ci xolu doomu adama bi ba noppi bàyyi taraka taraka fudula zinat al xayaat dunia li nga xam ni mooy detaayu taaruk àdduna dégg mu daldi mu mu kii ko àdduna du doon loo xam ni lu lu kawe ci moom la daal dina sol lu rafet mën na dugg ci lu rafet mën na dëkk dëkkuwaay bu rafet waaye du ko dépasé parce que day xam ni lii yàlla dafa yell ci jullit rek mu am ko du tee nag mu topp yàlla subhanahu wa bari na nit ñoo xam ni ñu ngi dëkk ci gox yoo xam ni gox yu tumuranke la wala ay dëkkuwaay yu tumuranke nga fekk koo xam ne mu ngi dëkk ci barab yoo xam ne barab yu bakkene la te fekk ki dëkk ci barab yu tumaranke yi ñuy jàpp ne daa dëddu àdduna xol bi àdduna moo ci fees dell loolu bari na ki nga xam ni moom lañuy jàpp ne moom moo moo bëgg àdduna dëkk ci barab yu yu taaru yi fekk xool bi àdduna tax nekku ci loolu bari na lu muy am am na benn histoire ñaari sëriñ yoo xam ni dañoo jàngandoo kenn ki dëkk ci taax wi kenn ki dëkk ci àll bi ki dëkk ci àll bi jëloon benn xaleem jox ko ki dëkk ci taax bi pour mu yaral ko te ki dëkk ci taax bi ngi dëkk ci dëkkin bu rafet bi yare xale bi ba benn bis xale bi tàggu ko di dem di tukki di dem fële ci seen village mu ne ko maa ngi lay yóbbante boo demee nga ma diw nga ne ko ndax mu ngi foofu di bëgg àdduna rek te moom ci àll bi la dëkk ki muy xale bi ne ko waa ko waa baax na affaire bi nag jaaxal ko parce que li ko li waa ji wax ak kii ni mu dëkkee loolu daal mënu ko imaginer daal mu dem ba mu demee daal di nuyoo góor gi ne ko na nga def mbaa ngi ci jàmm naka njàng ma ak ci aajo gi mu yëpp ba ñu tënk waaye li ko kii yóbbante ñemewu koo wax mu ne ko waxu dara mu ne ko mu ne ko ah, mu ne ko lu wax mu ne ko nee naqyang fidi baga adunarak manak ala ah, la la ko wawa mu tok ba ci yag nit ku honnête la nak mané ko wax na dëgg de moom foofu mu dekk non ak ci barabam yoy xol bi aduna dara nek ci aduna waaye mon fi ma dekk ni ak limi doye di doye di doye di ma ko gëna bëgg aduna fofu day feñ ba nitu diiné les jeunes marabouts dañu bëgg aduna ba nga xamni seen yitté yépp weesuwul mbolo ak nangu nit ak wut xaaliss ci nit ñi da do liggéey bëgg aduna moy waral lool moy waral ngay mer ngir mbolo ngay mer ngir ngir alal yo xamni do ko liggéey dang koy lijjanti ci nit masalan Ismaila mi manal na ma dégg nga moom moo yor samay mbir duma ko xëccoo kenn ablay amu ci place suma gisee Ismaïla Ndoye ak ablay rek amna ablay amna problème mak mom dotu ñu jaaro taal parce que sama yef yi samay mbir lay bëgg a wàññi addunay kese tax mbiru yalla dafa sew dafa sew ñu koy natte ñu koy natte ajuwul ci diwa ngi ci kër sëriñ bi rek wala mo ngi ci jàkka ji wala mo ngi ci daara ji déedéet ci xol bi la diwa ngi ci moniser ba ah gën a jege yàlla foofu kii xëy ci daara wala muy xëy ci juma wala muy xëy ci ci ci ci ci yeneen barab yoo xam ni diine lañ koy askanale wala a ngi ci bureau ba gën koo jege yàlla fuuf xol bi gën a féex fuuf ci àdduna te bokkuñu sax du jeex ma joxe misaal yu baree bare bare moo tax na ñuy tàggat suñu xol wala affaire bi nekk anu yàlla dimbali <coughs> a ngi dégg borom bi wax subhaanahu wa taala ci xadis kon yonent bi mu ne ku gën a dëddu àdduna mooy ki nga xam day fàttali ko bàmmeel ak ràpp te bàyyi at taaruk taaruk àdduna du ko yitteel te li muy gën a li muy gën a concentré wu mooy liggéey ci wàllu yàlla ak la muy dajeeg ëllëg te duy wàññi li nga xam ne mooy fani ëllëgam comme toll ak la ca topp du ragal dee daal borom bi wax ci xadis xusi mu mu ne sama jaam bi day bég suñ ko joxee lenn ci àdduna wa dalika abada lahu minni te loolu moom moom mooy soreel ak moom su ma ko joxee lenn ci àdduna day bég du bég maanaam julli waxtu juróom yëpp mu leer du kontaan ngir loolu du kontaan xëy jàng alquran du kontaan xëy def ay farataam mais li koy bégloo rek mooy mu am xaalis am ñoo xam bu ñu rek mooy tax ñu bég te loolu neen da koy yàlla bu ko defee muy muy muy muy jàq bu bu bu xaalis ba bu wàññi ko lu jëm ci walu aduna bu wàññi ko gis muy jàq muy tit te lolé da koy gëna a soril yàlla mune nak wa yawma nusayyirul jibala wa tara al arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum axada وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا من ويوم نسير الجبال اي كروك بني دبلا تخل تخل مونتاني بس بني تخل مونتاني من وتر الارض نجي السوفسي وتر الارض نجي السوفسي بارزة موي جقيق دنگ دي اجي لير دون بن نان فاي فاي بو خامني بو تالي لا du am du am cuq-cuq du am dara léppay leer tàll ñaneet ëllëg yowm alqiyaam nee na wa xacharnaahum ñu daal di leen pang mooy jiital ñépp ñu jëm ci kanamu yàlla ñi xam ne ñoo ñi gëm yàlla ak ñi gëmuloon woon yàlla mu ne falam nu gaadir minhum du ñu bàyyi ci ñoom ahadan kenn ñëppay jóg ànd do kenn sol tubay kenn sol yére ko defee nee na wa urido ñu daal di leen présenté ala ala rabbika ci sa borom yonent bi lay waxal de nee na ñu présenté la sa borom soffan par sappe ñëpp daal di taxaw def ay sappe ko defee ñoom ñu ne ah laqad jitumuna kama xalaqnaakum yàlla nee na laqad jitumuna ñëw dikke ngeen ñu ñëw ngeen ci ñun kama xalaqnaakum comme niñ leen binde woon ñun ni ñu ni woon noonu la ñuy dekkee ëllëg tamit boo seetlee doomu aadama tamit ni bu juddoo nañ koy def ah bu dee tamit noonu lañ koy def sang laxas bu juddoo nuñ koy def fomp laxas bu dëgg kenn du ko solal dara bu deewee tamit dañuy fompa dañuy sangaat laxas dal di sañ booy gën a doyee di sax nag dal di suul buy dekk it dekkiwaat ni ko yàlla bindee من لين لقد جئتمونا ين دكين ين كما خلقناكم كم من لين بندوان أول مرة تشك تشك تنبلي تشبون جكبا بل لفنا نمودي ين زعمتم دين وخني ألن نجعل لكم ندين لين دفال موعدا أكو راندفو maanaam li nga xam ne mooy rendez-vous dekk gi ñëw ci kanamu yàlla bu am daal loolu ngeen jàppoon yéen yéeféri ba tax ngeen nekk ci àdduna nekk ci lu leen neex def ni dekki amul li am mooy dund am na ñoo xam loolu lañ gëm gëmuñu ëllëg yawmal qiyaam dund daal moo fi am leneen amu fi mu ne wa wudia alkitaabu fa tara almujrimina mushfiqina mimma fiih wa yaquluuna ya waylatana ma li hada alkitab la yugaadiru sagiratan wala kabiratan illa axsaaha wa wajaduu ma camiluu xaadira wala yadlimu rabbuka axada mu ne wa wudi al kitaabu ñu daal di teg téere yi nag daal di teg dossier yi kenn ku ci ne ak say dossier bopp ak la ci ne la nga doon def ca lu baax ak la nga doon def ca lu bon mu ne fatara daal di gis al mujrimina tooñkat yi dal di xool dossier yi xool seen dossier gis ne ah ñoom kat seen mbir doy na waar ñoom kat admi wuñu dañoo war a bokk ci ñuy dem safara bu defee mushfiqiina ñuy way tiit min ma fihi ci li nekk ci dossier bi li nekk ci téere bi ah ñoom loola leen tiital lool wa yaquluuna ñu daal di ne yaa waylatana ay wa ñun de to ñun de alkande dal na suñu kaw ñun de alko nañu maa li hada alkitab wa téere bi moom moom lu ko jot moom téere bi kat dafa ñëw day bind ba bind bi nga toogee ci jàkka ja la nga doon noyyi wala day bind ba bind bi ngay dee dem ci dansin dansin ba jooge jéego yu waroon seq bu ci nekk ñaata dégg ñaata jéego la dañ koy bind ba nga fa demee la fa naan dañ koy bind la nga fa lekk ñu koy bind la nga fa wax dañ koy bind ñaata noy yi nga fa noyyi dañ koy bind ñu ne ah, waaw maa li haadal kitaab waa téere bi moom mooy mooy ban téere moom lu ko jot ba moom laa yugaadiru du bàyyi saxiratan du tuuti wala kabiratan waxuma lag lu mag nag du bàyyi bakkaar lu tuuti tuuti tuuti du ko bàyyi waxuma lag nag bakkaar bu mag a mag a mag nag li ñuy xeeb di ko xeeb du ko bàyyi jàpp ne du dara banaliser ko tuutal ko du ko bàyyi jëm ci wàllu shirk bokale bu ndaw defe ne ah du dara de comme ñëpp dañ koy def rek mën nañ koo def du ko bàyyi neena na wala kabiratan waxuma la ak bakkaar bu mag illa axsaha lu dool takk na ko lépp lay bind bu ko defee nag ñoom ñi daal di ñëw ci kanamu yàlla wa wajadu ñu fekk ma amilu la ñu jëfoon xaadiran mu ngi seen ginnaaw ci seen kanam teew nee na wala yadlimu rabbuka sa borom nag du tooñ axadan kenn ëllëg yàlla du tooñ kenn ëllëg kenn ku ci ne dana la jox la nga mérité bala joxee la nga mérité nag ba noppi léegi nag bu la bëggee yërëm mu dugal ci seen diggante yërmande bu la bëggee bu la bëggee bu la bëggee dugal aljanna mu doxal yërmande seen diggante jaare fa yërëm la dama tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Aïcha ko laaj ne ko nan la ñuy dekkee yom qiyaam yonent bi ne ko uraatun ufaat dañu duñu sol dara duñu sol dàll it nag tànki neen la ñuy def ak yarami neen kenn du sol dara ñépp jëm ci kanamu yàlla nee na ma ne ko ak jigéen ñi ma ne ma ne ma waaw waaw ba ci jigéen ñi jigéen ak góor ñépp kenn du sol dara nee na ma ne ko waaw ba duñu am kersa ci booba ma ne ko ma ne ko Aïcha mbir mi gën naa tar lool de <laughs> gën naa tar lool de maanaam kenn ku ci ne affaire yi dana tar ci yow taraay boo xam ni yow doo yëg ni sax ki nga dendel ni sa papa doo yëg sa papa nga dendel nii wala sa yaay ndax tiitaang tiitaange bi ñuy àndal loolu lu lu neex a firi la tey nit xam nga bu yëg bànneex bu yëg bànneex ba am ba am lu ko tiital lépp day dagg day arrêté dootul yëg dara ak bànneex bu mu mën a doon lu mu neex neex neex nit mënul bànneex bànneexu ba noppi ànd ak tiitaange bu tiitee du tal bànneex fii ci àdduna rek boo tiitee doo tey buñ ne la woon police ngi lay wër war laa yóbbu kaso ci misaal ah ñu ne la diw diw de mu ngi la war a jox un yow lay seet mais un million bi li muy baax li muy neex neex neex yow doo ci bàyyi xel de trop parce que kaso bi nga war a tëddi mooy nekk sa xel mi daf lay traumatiser lay tiital noonu la mel tamit <laughs> dégg بطيان انت وحتي حديثنا اياكم ومحقرات الذنوب فان محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاءوا ذا بعود وجاء, وجاء ذا بعود حتى طبخوا اخبزتهم من ما لين لميتلو بكار يونيوي ما لين ميتلو بكار يونيوي من ندخ بكار يونيوي dafa mel ni ay nit yoo xam ne dañoo wàcc ci benn xur bëgg a togg ñu bëgg a togg amuñu ay matt amul foofu amul ay matt yu mag ñu dem wuti ay matt yu ndaw mu nga matt yu ndaw boo ko dajalee day sakkan boo ko dajalee ba mu sakkan boo taalee boo taalee nga teg day togg mu togg ñamb ba mu togg nag ba mu ñor nag nee na bàkkaar yu ndaw noonu la mel maanaam ki koy def di ko day dajaloo mën naa dem ba doon daay boo xam ne mën na laa lakk yaa ngi dégg moo tax bu nit buy maytu bakkaar yu ndaw yi la ko yàlla di dimbali du jege bakkaar yu mag da ngay maytu bakkaar bu ndaw yàlla dimbali la ba bàkkaar bu mag doo ko mën a jege ndax bàkkaar bu mag yëpp mu ngi jóge ci bàkkaar yu ndaw beneen bi mu wax ci xadis ne maa ngi leen maytuloo bakkaar yu ndaw yi ndax bakkaar yu ndaw day ñëw ëllëg yowmal qiyaama mel na montagne maanaam nit day def bakaar bu ndaw di ko xeeb mu ñëw ëllëg yowmal qiyaam doy ne montagne kon dal bàkkaar ñu maytu ko rek ab jullit warul di def bàkkaar te di wala bu defee bàkkaar mu gaaw tuub ko mu dal di ñëw dellu si waat ci diggante malaayka yi ak iblis ba tey ca azal mu ne wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا من وإذ فتلكل يوم محمد قلنا بني وخي فتلكل بني وخي للملائكة ملائكي نلين اسجدوا سجوتا لين لآدم نيل سيدنا آدم fasajadu nyudal di sujud illa iblis ba des iblis iblis nang moom kaana nekkoon na minal jinni bokkoon ci jinne yi moo naan moy abul jan. yaa ngi dégg nee fa fasaqa fa fasaqa mu daldi kàccooru mooy walangani fasa mudalli dijangga an amri rabbihi cindigolug boromam Lagi nak yàlla mu mone tak tattaxiduunahu ndax da ngeen ko ku ngeen koy jàpp mom iblis wa ak ay satam awliyaa ñuy seen way seen mo méngoo ñu kilifa ndax iblis ak ay njabootam ñuy sen kilifa Ta iblis ca démb bako ko yàlla ne sujjotalal euh, sayidna aadama dafa bañ ndax di ngeen leen di jàpp ñuy seen kilifa min duni bàyyi ma fi man yalla ndax di ngeen di iblis ak ay njabotam ñuy seen kilifa bàyyi ma fi man yalla amna ñu japp iblis muy kilif ñuy seen kilifa amna ñi ñi ndar kep aduna bi iblis moy seen kilifa mom lañ ne moy borom benn beut bi nga xamni fo nek mo mu ngi lay gis muy symbole bo xamanteni ci seeni symbole yu magi la bokk من وهم تنيوم لكم نيل لن عدو ak noono iblis yenn noon la nit mënul fekk noonam jël ko def ko muy kilifaam mu ne bi sa bon na dégg nga li zalimina ñeel tooñkat yi badalan la ñuy weccee ak yàlla iblis ma ñu jël teg ko palaasu yàlla nee na bon na loola jaamu ko di iblis yi nag bari nañu ci àdduna bi fi mu ne ñoo nder keppe àdduna ñoo téye économie adduna bi téye alal ji dégg nga mboolem secteur buy doxal jamono daanaka ñoo ci ñoo ci teg tànk foo dem am nañ fa ay ay partisan diine jeeg foo dem rek am nañ fa ay partisan yoo xam ni ñu ngi doxal seeni mbir dégg nga pour nit ñi ñëpp topp yoon wi nga xam ne moom la ñuy topp muy jaamu iblis mu ne ma ashhadtuhum xalqa samawati wal ardi wala xalqa anfusihim wa ma kuntu muttaxidal مضلين عضدا من ما أشهدتهم سير لو ملن سيد لو ملين خلق السماوات بندك أسمان والأرض أكسوف ولا خلق أنفسهم بتشاجين بندك سينك باب نوم شيطاني نوم فك ونيو بني بن أسمان أكسوف نيون يالله فك ونيو waxuma sax ñoom bind seen seen bopp sax créé wuñ ko dañ leen bind bañ leen bind it fekk wuñ ko ولا خلق أنفسهم فأنا وما كنت من دمان يكتمن يا الله متخذ دي أجي جاب المضلين جنجا خمنا وي سانكو لج عضدا ني أي دنجا أي أي مانام أي أي وي دمبلي عضدا موي نيو خم موي أعوان تي عرب نيو خمنتني دم لين جابي كوم أي سرغا waaw جل ma خم ñi nga xam ni dañoo sànku di leen def comme ay surga kon ni nga xam kenn la ci uluhiya uluhiya dégg li ñaa martabatul dégg uluhiya ak ak rububiya bokkul kenn la ci uluhiya di kenn ci rububiya ñi ci des ñëpp ay jaam lañ te ñoom ñëpp moom moo leen bind moo bind malaaka moo bind nit jinne moo bind nit yi ba noppi séparé seen diggante ci seeni melokaan ak seeni bindin boo demee Saïd ibnu Musayyab day wax ne malaaka yi duñu ay góor duñu ay jigéen duñu jur duñu lekk duñu naan bu dee jinne yi nag ñoom dañuy jur am na ci ay góor am na ci ay jigéen te it dañuy dee waaye jinne mën naa dund ay téeméeri téeméeri téeméeri téeméeri at am na ci ñoo xam ne mën nañu gudd fan dund lu ëpp junni at sax yaa ngi dégg loolu moo tax xeex ak ñoom xaw a xaw a metti léeg-léeg ndax da ngay dee baleen fi ñu continuer di di xeex ak say say say njaboot bu dee shayatin yi am nay góor am nay jigéen ñoom tamit dañuy judd di dee sawrala duñu judd ñoom duñu jur te duñ faatu loolu moo tax ñu bari shayatin yi duñu jur duñu judd duñu jur te duñ faatu ñu ngi fi am nay góor nag am ay jigéen ñoom dañ fi nekk diiru jamono yëpp ba adduna bi di tukki comme ni fi iblis di nekkee ba booba waaye iblis nag mooy baayu jinne moom mooy baayu jinne maanaam jinné mu ngi sosoo ci iblis moom moo leen jur loolu moo tax am na ci ay jullit waaye am na ci ñoo xamante ni duñu ay jullit ñuy dee naan jinne dañ koo fàdd jinne da koo fàdd loolu agresseur lañ ko mooy agresseur jinne yi nga xam ni muy nekk ci mbedd yi di doxaale yenn jaam yàlla jinne boo xam ne jullit la nag du tooñ déedéet du tooñ te bu mbokkam tooñee dana toog aw diir ñi dajaloo di ko mettit ci seen tooñ boobu seen mbokk moomu tooñ noonu ñi nga xamante ni ay jullit lañ laa wax noonu la leen yàlla bindee ala kulli xaalin nag dinañuy am maqaam tamit ci yàlla waaye duñu bëgg nit romb leen léeg-léeg nit di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba bëgg yegg traversé yenn maqaam yi ñu gaar seen diggante parce que dañuy bañ nga romb leen parce que dañuy bëgg léeg-léeg ngay jaar ci ñoom nga ñu doon sa intermédiaire léeg-léeg ñu jëfandikoo yow ci façon yoo xam ni ngay defee ni danga nangam nangam fekk du loolu amna na leneen lu ci nek lolu amna ci seeni manipulation borom bi mo ne wa yaquluna du naadu shurakaaiya zaamtum fad'awhum falam yastajibu lahum wa jacalna baynahum mawbiqa mana ne ak bis ba nga xamanteni yaqulu suñ borom subhanahu wa taala day wax ne nadu wolen ma shurakaaiya samay wujju yi ngeen ma wutaloon maanaam ñi ngeen ma doon bokkaale alladina ñi nga xam ne zaamtum yéen a ngi leen doon tudd fa daawhum ngeen woo leen leen ngeen daan leen ñaan tamit bu ngeen daan ñaan ñoom ngeen daan ñaan ma toog naan sëñ diw may ma nangam boo liggéey di nga woo sëñ diw ci kanam yàlla mu ñëw taxaw yàlla laaj la ba xam sëñ diw moom moo doon maye wala woon maa doon maye wala nga dem taxaw tok ci bammelu diw di ñaan naan ko may ma nangam boo di nga taxaw mu wala ya, wo di mom mu laaj na mbar wala ma do may wala nga yor par telephone bu muy wad nga naan seen diw seen diw mënu ko téye bo liggey yalla dina laaj ndax telephone bi doon wad li doon tax mu baña yaqku seen diw la wala man la wala ay sew sew la shirk la de lepp luy dal nit muy tuddu nit rek mo ngi ci shirk yalla nit nak liñ ko wara ñëk yare ba mu xam lan moy ba mu xam lan moy pas passu diine islam ak lan moy pas passu li nga xamanteni ihsan la moy lu jëm ci walu tariqa buñ ko buñu renverser affaire bi rek musiba am diine folklore lay yor manam tay wazifa lay gëna fonku ñew julli juro lay waxe hadra juma lay gëna fonku dem juma julli ci lolu nak musiba la tooke ci julli bi ak cànkute rek la la jural nak ndax lixsaan mënul taxaw te l'islam taxaw bala lislaam ihsan taxaw l'islam da fay taxaw lo wasifata julli wo man te nek akada mu wara al mujrimuna wa waa falam yastajibu lahum ta tonti wul nen wa jaal naa def baynahum ñi def baynahum sen diggante dégg nga mubiqan ak alkande ñu def seen diggante ak alkande ñi nga xamante ni mooy tooñkat yi ëllëg ñu gis safara ma ne war a ñan la ñuy def alkande ci seen diggante mooy bokkaalekatu yàlla yi ak ñi ñañ leen doon bokkaale te ñom ñu nangu won ko mané wara al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifan mané wara dal di gis al mujrimuna toñ tooñkatu yàlla yi ñu gis an-nar safara fa dhannu ñu dal di mu wër leen ni annahum ne ñom kat mu waqi'uha ci sawara gi lañuy tàbbi wóor len ni ñoom ci safara lañuy ñuy walam yajidu ta amuñu anha wala safara gi masrafan ak soppe manam amul len luñ mëna def ba duñu dugg ci safara si loola dana xew ëlëk yowal qiyam yàlla nak mune wala qad sarrafna ñoo leral هذا القرآن القرآن بي للناس ñeel nit

amna misal bo boo bu concerné wal cohésion sociale la yëpp bu ci nek rek ak nam ko lam ci jàngale mun ne wa kaana nekk na al insanu doomu adam nak akthara shay'in dil gëna bari jadalan ci dàgge doomu aadama li ko tardeel ci dundam yëpp moy werante bu bari moo tax yonent bi doon wax ci xadis ne ma dalla qawmun ba'da hadiyin kaanu alayhi illa atawul jadal rawahu abu umama mu ne nit sànkuwul ginnaaw nit du sànku ginnaaw ba mu tegoo ci njub lu dul dafa dugg ci loo xamante ni ak ak werante la ak dàgge la mathalan diine buñ la ne yàlla subhanahu wa taala dafa farataal ci ñun julli juróom alquran indi ko junj ko indiwu ko ci yoon bu maanaam directement mais indirectement la ko jàngalee nga ñew ne no alquran bi mu ñewé dene dene takusan le wax ak de nga subala wax ak ak ge de nga ak timis kon takusan de nga ak nangam ñu ci commencé indi wérante wala nga ñew dugg ci alquran ndax ay mindeef la wala du mindeef wala mo gën yonant bi wala yonant bi ko gën lolu détail la lolu détail la ci julit julit dafa wara gëm ni alquran sifatun min sifatillah yàlla soxlawul ci ñoon ñu lijjanti ci baxam alquran moo gën yonant bi wala yonant bi moo gën alquran dafay indi dalaal ci jullit bi yaa ngi dégg li nga xamante ni mooy werante tey ñu fekk kii taxaw jël loxoom aj ci kaw ke wàcce loxoom ci suuf ñi naan waaw bii mooy bi sunna bi bi la yonant bi wax bi noo ko defee defoon nangam loolu détail la ci ci jullit wala ñëw fekk jubay joo xam ne dama koy sol mu ñëw ba tolloog te sën bi ki naan yonent bi fii la ko doon yamale ki naan da daan ñëw ba ci genou bi ki naan noono da ñëw ba ci digg tànk bi détail la jullit bi bu bëggee lii maanaam di wàññeeku rek na dugg ci détail yooyu benn day te feewale jullit bi ñaar amul benn lum ca mën a jëriñ lum ca mën a yokke kon amalu ko njëriñ wala imam bi bismillah lay tàmbale wala alhamdulillah lay tàmbale détail la amalu ko njëriñ déedéet boo demee ci ahlu tawil dañuy wax ne dafa bokk ci jikkoy doomu aadama werante ak xulo te ci loolu yaqta'uuna tariqa ala anfusihim loolu mooy arrêté seen yoon ki nekk ci yoonu yàlla ki bëgg a jege yàlla bëgg leer bëgg ruux bu sell nay maytu kon werante ak dàgge gu bari ak defante leg leg ñu def werante googu ak yonante yi bu ko defé yu jadiluna la yaqbaluna bin nubuwati war risalati hatta yuqatilunahu le leg ñu werante ci digënté yonante yi naan kii yonantu la ki du yonantu Seydi hajmari radiyallahu anhu bañ fi nekké naan luqman yonantu la yonantu nangam nangam nangam ci mom mu ñëw mu ne mu ne nit ku bax la rek boo ne nit ku bax la min as-saalihiin jeex bu dee yonantu fenu loo bu dee du yonantu it wax nga dëgg hakada nga noppalu bu defee léeg-léeg ñu werante ci yonantu diggante yonantu ak moroomam danay faral di am wala ngay ñëw dugg ci diggante li xewoon ci yon ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggante sahabatu rasul di ca werante ba jël ca position di am saxaaba booy écarté boo ko xam moom ngay faral ak yooyu yëpp day tardeel jullit te day wàññi gëm-gëmam te day dagg yoonam ci yoonu yàlla léeg-léeg ñuy werante ci téere yi wàcc jóge ci yàlla ñi naan yàlla wàccewul téere ci mbindeef léeg-léeg ñuy werante ci atte yi nga xam ne moo ñëw ci téere yi léeg-léeg werante ci mutashabihaat yi ñëw ci alquran léeg-léeg ñuy werante ci lan mooy naasix ak mansuux aaya ji yàlla folli gi folliwu ko gi nangam i détail la détardel jullit léeg-léeg ñu werante ci tafsir bi ma ñëw naan waa man bi may tafsiré mooy bi wér bee dafa am nangam be nangam déedéet d'accordal ne ñi ko def ñëpp duñu ay cuune ay borom xam-xam lañ ay mi cër lañ ci yàlla yàlla may leen ilmu laduni dégg nga ak li nga xam mooy ilmu xam-xam bi nga xam ne ilmul kasbi la ñu boole ñaar yëpp daj ci lu ne ba ba ba téere bi sotti nga mën caa jot jàngal rek dégg sa yoon nekkul ci ba ca wéer ak ba ca nangam loolu du sa affaire sa yoon nekkul ci léeg-léeg ñu werante ci aaye bi wàcc fii ak bi wàcc fële lu yëpp jullit yi léeg ñu werante ci kon lislaam bi di ko tardé lépp mooy werante ñu ngi jóge ci weer wu feeñ ci weeru koor bala ñuy woor rek foog ñu weranti ba mbëkkante kenn ku ci ne li mu bëgg mooy yay moroomam ka gis weer wa Kër Masaar ak ko ko gis jollof ak ko ko gis nangam ak nangam legi man neena ko gis Kër Masar lay àndal du juuf rek wor déedéet du ci am de ma wan nit ñi ne man ma am deug bu suba xam lu may def teela sent di xol ba xam weer bi day tuti wala day reey bu de weer bu xaw reey la man leen gis ngeen seen koor gi dem ngeen waroon woor jari. mooy pour bëgg wané ni dama am deug rek amu du deug keneen ki nga xamante ni moom it àndul ak waa Kër Masaar tey la woor moom it buy séentu day xool ba xam tamit nan lay def ba am dëgg ci ñu woor démb <laughs> léeg nga gis boroom xam-xam buy laajte buy gëstu weer ngay buy wax nga yëg ni kii fas yéenewul woor maanaam matal Shaaban 30 dafa bëgg kut koo kut faaw mu woor suba loolu dogu na ci ba pare parce que dem na ba ba maanaam ba ñëpp xam ko ci maanaam kooku ba kenn lay demee demetul ak intention jaamu yàlla ba kenn lay demee moo tax buy wax yow di bëgg nga jox ko même bu amul lu leer sax dana dem seeti keneen léeg li nga gis kiy joxe information màkk la daan sukkandiku non balaa màkk sax ci réew mi lay dépare léeg-léeg du am ci information yu wér ci réew mi de danaan màkk de nangam la ñuy def après mu ne ci gox nangam ne ne nañ te wóor na ko ni amu ci information yu wér parce que dafa dem ba ñu miin ko ci wuute googa léegi fasatul yéene di tegg yoon woowa maanaam kenn dootu ko ràññee loolu ba kenn la du yëpp ay xeetu mbir la yoo xam ni jullit bu góor góorluwul tuuti di saytu di nattu li mu jàng di ko jéem a pratiquer dina tabbi ci piège yooyu te ñu bari dañ ciy tàbbi nag man su ma waree tey yow nga ni waroo tey suba ngay war lu mu jotee yow bu ci mere na bàyyi naa la bàyyi nga woor suba rek dégg bu dee man suba laay woor yow nga ne tey lu ci problème quel est problème ah ku ci nekk na nga dem ak sa yéene rek li ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla noppalu lu dëgg hakada ne wa ma manaa annaas an yuminu id jaahum alhuda wa yastaghfiru rabbahum illa an tatiyahum sunnatu alawalin aw yatiyahum alazabu من وما نع الناس ترول نتني أن يؤمنوا نجم إذ جاءهم الهدى بولين بولين أجن ديكو ديك ديكلة إذ جاءهم بولين ديكلة الهدى جب ويستغفروا ربهم تني جعل سين برم إلا أن تأتيهم لدول دلين ديك سنة الأولين الدخلين بنجيتنا ما يورنتي maanaam nit ñi dara mun leen tere tege ci njub julliti ah ñi jéggalu yàlla di leen jéggal nekk ci yoon wu baax dëppoo déggoo lu dul dañoo jëfandikoo la ñu njëkk ña daan def mooy bari werante li yudxidu ngir ñu far bi ci werante googu alxaq dëgg loolu rek lañ bëgg ngir ñu far li nga xam ne mooy dëgg mu doon caaxaan te nga gis tuba bi organiser ay plateau ñu wax ba ci l'islam dal di ñew deng commencer poser ay question def ay critique nangam ak nangam pas-pas li nga xamanteni ni li nga xamanteni ni ilahi khalat amu ci lo xamni ni la bu jige ci yalla subhanahu wa taala ñew ci nit lola kenn amu ci khalat alquran kenn amu ci khalat kenn amu ci lu muy yok kenn amu ci lu muy wañi waaye dañ ci jël dañ ciy jëlee expérience jéem koo jéem koo jëriñu loolu nag jullit bu ko xàmmewul dina indi jafe-jafe ci moom dafay dafay day day wàññi pas-pasam moo tax ñoom lii du xidoo ngir ñu far dégg nga bii ci werante googu alxaq dëgg rek moo leen ñor wattaxadoo ñu daal di jàpp aayaati sama aaya yi dégg wa ma unziru te waaru ñu ca de waaye ñu jàppee ko huzu an wala wattaxadu ñu jàppe ayati sama ayi huzu an muy ak sabotage ak folklore waaye wa ma unziru waaru wuñ ci ni gaa yi di jàppe aye yi huzu an te waaru ñu ci noonu la amee ay jullit yoo xam ne dañoo jàppee alquran comme folklore léeg nga gis nit ku génn benn single artiste musicien daal dina daa way amana rasul way ko comme musique wala mu way ayatul kursi wala mu way kooku dafa jàppe aaya yi caaxaan la ko jàppe ak folklore am na ci ñoo xam ni sax dañ leen di financé pour ñu saboter alquran am na ci pour wane ni lii du dara génne benn single way ko nit ñi dem ci dansin muy way ñuy fecc ay alquran mo koy way ñu koy fecc diko diko di ko taaxuraan c'est grave ça yooyu ay ay musiba la amna ci amna ci amna sax ba ci rew mi nag ci rew mi amna ci mané waman wa mimman dhukira bi ayati rabbihi fa arada anha wa nasiya ma qaddamat yadaahu إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا من ومن أظلم كان موغانا من التوج ممن تكون خمني ذكر تدفن بآيات ربه تآية برممي فأعرض عنها مدالك دموي كان موغانا من التوج كو خمني بوكو تدلي القرآن من له أن جنبي ولا القران فاسيني وول جيفي سي دارا ولا لو جيم سي القران بوله وكو سي اي ميرم كان مو غنا مانا توانكو بو نوبي وناسيه مو فاتي ما لاغا خامني قدمت جيتال نكو يداه نياري لوخو تي اي بكار موم لي القران دي دي جانغالي فاسيني وو سي جيفي دارا جيمو كو صاح خلاتوكو دخول جيم سي صاح نك ba waxee lim lay wax dégg ay lay site ay nangam nangam denga ay philosophie ay na yooyu la ñu gëm loolu yooyu la gëm li nga xamante ni wul ci li aju ci wàllu pas-pas moom boolewu ko ci dundam mu ne inna na ñun nag yàlla ñoo def ala qulubihim ci seen xol yooya gaa yooya akinnatan akuk tëx mooy ak muuraay gaa yooyu yàlla moo muur seen xol duñ bëggee alquran foo fekk jullit bu dul bëggee alquran xamal ne yàlla dafa muur xolam jullit boo xam ne foo fekk musique lay déglu kooku yàlla kaste xolam yàlla dafa muur xolam yàlla moo muur seen xol an yafqahuhu ci ñu mën ko xàmme mën a comprendre alquran mënuñu ko comprendre mukk ci àdduna wa fi aadaanihim nekk na nekk ci def ci seen nopp yi waqran ak dégg nga saañ alquran dinañ koy dégg ni waaye duñ ko déglu bari na jullit yoo xam ne dañuy dégg alquran waaye dégluwuñ ko léeg ñu taal ko sax di ko dégg waaye déglu ko loolu loolu musiba la dal nañu démb rek toog ci barab di jàng alquran ci xew-xew woo xam ni xew-xewu jamono liñ ko tuddee maanaam ngénte jigéen ñi dañuy ñëw teg seeni bagage seeni muraay seeni nangam nangam seeni affaire yooyu ñu jokkalante benn loolu sharia da ko tere sharia dafa tere loolu maanaam nit di jël ay bagage di baatere di joxante ñiy joxarbante loolu du diine malheureusement nag ci këru taalibe yi nga koy fekk nag mooy li gën a garaaw nag kër yi nga xam ne dañ fay jàngale diine fa koy fekk ñu koy pratiquer mu doon fa loo sunna la boo xam ne kenn dootu ko dindi ñuy jàng alquran ñi yuuxu fële di joxe fii indilante jox korbante mar day taale yow mii def loolu alquran di la rëbb ay yi ñuy jàng def lay rëbb ba keroog ngay pare buñ koy jàng boo mënul déglu jugal dem boo mënul déglu teewlu ko jugal dem rawatina nag li ngay def yëpp di yëfi àdduna kase malheureusement taalibe yi war nañu góorgóorlu bu baax toru daara yi serinci. sëriñ si am nañ jafe-jafe ci diine gu bare bare bare te buñu gor góorgóorluwul marretaal leneen mën a ci fekk manam li nga xani moy principe l'islam yu bari day xaw di soxé ci surtout nak jigen ni di di jang yoy dafa melni bu lu commencé xewi legi mag ñi bu ñëk seen jaboti dañ amul jigen amul gor ñepp dañ daan jang dañ jang alcorane jang sharia di pratiquer di sam seen yaram di gor ci seen diine yooyu nag dafa commencé di jeex léegi dangay ngay dugg ci garu daara jékki jigéen ñi duñ jàng dara walla ñuy jàng tuuti tuuti la duñ duñ ko pratiquer bëgg àdduna fees dell ci seen xol yi nag ak dégg nga topp jamono tu yooyu jëmul fenn war nañ góorgóorlu nañ góorgóorlu bu baax mu ne inna ja'alna ala qulubihim ñoo def seen xol yi ak kinnatan muuraay an yafqahuhu ba ñu pour ñu comprendre alquran وفي آذانهم نفس النبي وقرا أكساج من وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا اذا أبدا وإن تدعوهم ولن و إلى الهدى تنجب يعني فلن يهتدوا دنيا جند إذن كن أبدا بفاو نحن يوم سين خلي دا مورو سين نبوي نسانكو ku bëgg nag yàlla musal la ci xol bu muuru ak napp wuñu saañ mooy dee teelu dee teewlu deel bu ko dégg rek boo ko déggee dee ko déglu buñ ko tegee buñ ko dee jàng foo xam ni woor na leen yaa fa te woor na leen mënoo koo déglu jugal dem mais boo fa toogee di ko perturber malaaka yi dañ lay rëbb malaaykatul rahman dañ lay rëbb yàlla di la rëbb alquran di la rëbb de keroog ngay pare te li ngay def maar day taali yàlla leneen mën na la caa fekk ci yàlla musal من وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا من وربك صبرهم الغفور موي أجي جقل من ذو الرحمة موي برمك يرمن من لو يؤاخذهم بلين دون جابي بما كسبوا تلين يفقوا لعجل لهم كرم جابلين العذاب مغلقا ويبلفنا موي لهم نين الموعد اقدار موي رانديفو موي جامي غاي نك تي كاو سوف دي توغ يالا بو فيكون ني مانام لي ني ديف يالا دالين تي توپ رك دي لين بوغل كون نيوم نيب بوغل نلين دولن دولن خار سا ني فات نيوم نيب لاي فاغاغال تي ساسي واي نينا يالا ديف لين جوخ رانديفو بو خامي رانديفو بو لي خار مو يكسي بل لهم موعد motax tax mu ne lañ yajidu duñu am min dunihi ci kudul mom de nga maw ilan ak wëru way ci ci manam ci ci ëlëk ci mbugal gog ana wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li mahlakihim mawcida mu wa tilkal qura dëkk yoya ahlaknaahum ñoo leen alagoon leen alagoon dëkk yooyu mooy yéen dëkk mooy bani aad ak thamud ba ñu teggee ndigalu yàlla kon da naan bu la neexee nga ne wa tilka al dëkk yooyu di aad ak thamud ahlaknaahum ñoo leen alagoon lamma zalamu ba ñu tooñee woon wa jaal naa ñi def li mahlikihim ñeel seenuk alkande mawidan mu dik ak bu boo xam ni yegseegul bu yegsee ñoom ñëpp mbugal dana dal seen kaw boo ñëwee ci aaya bi da ngay gis ne ishaara la ci li ñuy tudde asbaabul hidaaya asbaabul hidaaya mooy sababu njub bu bu lépp daje woon laa yahtadi biha annaasu wala yuminuuna illa bi jadabaati al anaaya maanaam nit lépp daje woon ci moom te yàlla deful ci moom li ñuy tuddee inaaya jazba maa li ñu tuddee jazbul inaaya du tax mu mën a jub bu lépp daje woon bu condition yëpp daje woon ci moom te li ñuy tuddee jazbul inaaya yàlla defu ko ko du mën a gindeeku moo tax yonent bi doon wax naan lawla allahu mahtadayna wala na wala sallayna budul woon yàlla mu ne duñu gindeeku motax ñu wara ni bu baax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla la neex mu tan ko jël ko bind ko def ko muy ku gën ci mbindeefam yi bëgg ko bëggeen bo xamni ni ko ben jaamam waye taxul mu am pouvoir de pouvoir bi yeb mu ngi ci yalla subhanahu wa taala taxul muy dogal de dedet taxul muy dogal de dogal yeb mu ngi joge ci yalla subhanahu wa taala Limi wax waxu yalla la lépp lu mu wax rek waxu yàlla la subhanahu wa taala moo tax mu ne bu dul woon yàlla duñu ñu gindeeku te duñu saraxe te it duñu julli tamit noonu la ko waxee ci hadith kon dañ naan ihtida jub mu ngi am ci hidayatullah ci njubug yàlla maanaam yàlla gindi la nga jub dafa am hidayatullahi taala dégg nga am hidaaya boo xam ni bi sayfi la amna hidayah hidaaya gindeeku go xamanteni amna nit ko xani bala muy jub hidaayatullahi mooy jiitu waaye jaasi moo ciy topp manam fok ñu jàmbarloog mom pour mu mën a tuub ci l'islam gone bu kolan alquran benen affaire la won ca fañ ko tegon fa tegon alquran fa tegon dinga ak jup ak jubal yoy da commencer wagne ko commencer raf legi barab yi nga dem nga xamni da wo génne ci kër ge boo daan compté bu doon fukk lañ boo compté ñett dégg nga ñett yëpp dañuy mokkal alquran nga indiwaat benn boo xam ne miin na wala mu wàcc yooyu mu commencé jeex surtout ci këru dara yi parce que ijtihaad bi amatul moo tax bu ko defee mu ne ni nga xam ne mooy ahlul batili dañuy jël dëgg def ko neen loolu nag la koy waral mooy seen xol yi mooy gumba seen xel yi tamit doon xel yi dof mooy waral ñuy werante ci yonant yi ndax réer guñ leen réer ak seenu cànkute li ñuy def yëpp ci mbiru ci neen la rek ak maanaam ak neenal dëkk ñi nga xam ne ñooy ahlul xaq ñoom dañuy omatu ci ndigalu yonant yi ak awliyaullahi ba noppi jébbalu seen bopp ci seeni mbir duñu dëgër bopp du ñu werante nan lan moo tax mooy ñoom ci leeru yàlla lañuy ñuy xoole bu ko defé dañuy gis al haqq muy haqq ñu diko top deug dëgg muy dëgg ñu top ko muy gisé al albatila muy batilan waytani bu ñu dal dikoy maytu ñooñu mooy ahlul ahlul ahlul haqq mo dañuy wax na li nga xam ne mooy yërmandu yàlla subhanahu wa taala ci aduna da fay dajal julit yépp ak yéféri ñepp ko bok yermande yalla mo ngi ci julit yak yefer yeb ci aduna ndax lolu motax ñu mëna xey di lek di naan di liggey lolu ñepp ci yam xam nga di dox di wax di daw di entraîner yep ñepp ci yam lolu yëpp mo ngi ci yermande yalla julit yak yefer ñepp ci yam waye nak yëllëg ëlëk yowmal qiyamah yalla mu ngi ko jagleel juliti yi li nga xamne moy mbugal tamit mu jaglel ko yéefari mota ay bi ñëw nañu wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu yaa ngi deg wara bo deme ci hadith yonent yi doon wax na al mulku yabqa ma al kufri wala yabqa ma al zulm nguur day dess ànd ak kefer nguur bu saxé kefer lay mujj doon waye nguur du sax ànd ak ànd ak toñangé toñangé gogu dana massa wàcc tay masalan ya ngi gis réew mi ñu ngi ne dañoo bëgg mu soppeeku coppeeku ci ban anam mooy réew mi neex nit ñi di am dund dégg di am di am xaalis ak ya ca waaye ba tey dafa wuñ politique boo xam ne li nga xam ni mooy jikko yu baax dana fi sax ñun waxi pétrole ak gaz ak uranium dégg ak phosphate ak ya ca aju ci yooyu la ñuy débat fi mu mooy débat technique bi am na solo waaye gisaguma ñu posé gisaguma ñu posé ay acte yoo xam ni ay débat yoo xam ni day jëm ci avenir u réew mi bu de bu ñu jëmee ci émergence wala développement ndax jikko yu baax yi nan la ñuy def ba mu sax fi am fi sax fi kersa am fi ngor am fi dëggu am fi naafi nifaax dañ fi parce que réew mi dafa bari nifaax lépp lu ñu war a wax muy dëgg ñu leeral ko dañ koy raay raayee rafetal ko mu dem kenn ku ci ne toogaat si ruq naan ah mooy lii de affaire bi dee dafa mel ni nangam nangam te kenn du ko wax ci penc ma loolu mooy suñ problème nan la ñuy def ba nifaax googu deñ fi ñuy dund ci dëgg ku waxul dëgg ñu ne la waxoo dëgg nga dem nga dem wëri dëgg ku deful dëgg ñu ne la defoo dëgg nga dem def jëfi luy tax nga jëf dëgg bu ñu yeggul foofu penc moomu du mën a defaru bu ko defee nit ñi ñëwaat génération bi ñëwaat ay naxan ay naxakat la ñuy doon ku ne da ngay jema nax sa morom rek ak da to lolu baxul ci rew yoy nak ba du nek ci penc ay jikko yu bax di sax dede penc li tax jikko yu bax sax fa moy mu teggu ci deug war nañ cee góorgóorlu bax nak te jema bolé ko ci politique gouvernement bu bes bi nga xamne mom mo moo installé moo tax ne gis nga mo ne al mulku yabqa ma al kufr wala yabqa ma al zulmi من وإذ قال موسى لفتاه لجنك نيكما سيدوغو نكتي قصة بيغا خامني موي ديغان سيدنا موسى اك سيدنا خضر نان خضر موي لي سيو ام ني نان خضر واي خضر مو غنا سيو خضر من ديف لاون مو خامني تي من ديفو يالا يلا ام ني نه يونتو لاون صح waaye boo buggee noppalu neel nit ku baax la woon rek xam nga li alquran vingt cinq yonantu moo ci ñëw am ñu ne vingt sept ñi ne vingt sept dañ cee boole xadir ak zul qarnayni ñi ne vingt dañ cee seppi xadir ak zul qarnayni sabla xadir ak luqmaan kon xadir ak luqmaan ñenn ñi génn leen ci ba tey ñu xadira ñëw yegseeguñu ci lan lañ waxante nee na bi ñu dajeeg sayiduna xadir qala lahu musa musa ne ko hal attabiuka ala an tuallimani mimma ullimta rushda hal attabiuka ndax mën naa laa topp ala an tuallimani ci nga xamal ma mimma ullimta ci li nga xam rushdan ci njub li nga am ci xam-xam ndax mën naa ànd ak yow nga jàngal ma dara waaye nag daf di nit ku jafee àndal parce que moom ay mbiram day jëf dara te xam lu tax mu jëf ko xaala xëy si xadir ne ko eh, inna ko yow nag Moussa lan tastatia mai sabra lan tastatia attanoo mai ànd ak ànd ak di muñ ni may dundee mënuloo ànd ak man ci muñ li may dundee li may dundee mënuloo ko mënuloo ko muñ parce mën naa jëf dara doo ko doo ko mën a muñ te xadir xam ne ni Moussa yonantu bu ko waxee loolu qaala sayyidna Moussa ne ko sa tajiduni insha xam na ni nag ci ay mbiram yomb xam na ni ay mbiram yomb si que man maay yonantu ñëw ci moom dëgg ànd ak moom mono mono ànd ak man ça veut dire que kon ay mbiram lu compliqué la qaala mu ne ko sa tajini nii dañ ma fekk insha allah bu soobee yàlla saabiran mooy muñ kan ngay def yow dinaa ko mën a muñ wala aasi laka amra te du ma la moyal benn recommandation boo ma jox maanaam lépp loo ma sant dinaa ko def xadir na ko d' accord qaala mu ne ko fa in ittabaatani comme demee na noonu soo ma dee topp fala tasal nii bu ma laaj an shay'in ci dara lu ma def neel googu rek te nga déglu ma bu ma laaj ma laaj benn explication xam nga loolu neexul parce que lan mën nga ànd na jékki-jékki da nit dóor ko pour bañ te doo ko laaj ba nga ko dóor kii bala daa ko daj ci ngi war na ko dóor kii aw nga waaye comme que pacte la boo xam ne dañ koo signé ba d'accord si moom mu fas yéene way ci loolu mana bogola darala hatta hajjata laka nunul damala ba denga min ko jaloro dhikran aw nettali nene li mo tax ma def budul lo yow neen ngeet rek mi ta nga andam melal ni xawm yàlla bul laaj bul gëstu bul lëj matu yàlla nee na fan xalaqa ñu daal di dem ñu daal di dem ànd nag hatta ida rakiba ba ñu war ci safinati ci gaal ci daal di war gaal ba ñu waree gaal xadir daal di jekki-jekki rek gaal gi dem ba ci digg géej gi rek mu bënn gaal gi te xam nga gaal boo ko bënnee day sol ndox bu soloo ndox dafay diig mu bënn gaal gi ci daa war di koy daal di koy faq Qala Musa dia ah, ya, kharaqtaha dah dah dah benegal gini itu mereka ada kunci jiwan koron dari lapar karena dah begini nih si galgi lah kau gabal boku boku benih dah beli dulu tu boku dia dah dia Musa dah ya macam dia dia kata kau cisas tapi sering dia <laughs> dia kau pernah قال من أقول يومي جبت شيئا عندي غمير مو خمي واي امران واي ميمو نياو لا واي تدي فو نيو ديف كوك سيرنيام كان نيكو لو واخ لو ما سيك با لو ديف بو ما ما جي خلا واي تامبالي لا ديغ خات نا ابو غير قال خضر نكو الم اقول لك خلا مقبل وطني انك لك لن تستطيع معي صبرا منو عندك من, من ni muñ ni may dundee waxoon naa la ko ci début ah ma wax ak yow ba tënk li ñuy wax ba nga ne ma nañu ànd léegi loo def du ma la laaj te loo ma digal dinaa la dinaa ko def yow tàmbalee muñ sax bu commencé ma digal di xaar xaala Moussa ne ko laa tuaaxir ni de garaaw ba ma jàppee bi maa nasiitu ci li ma fàtte damaa fàtte woon rek damaa fàtte woon moo tax ma nga kii mais dootul amati dégg nga wala laa tu'aaxidnii bu ma jàppee bi ma nasiitu ci li ma li ma li ma fàtte wala turhiqnii te bu ma ërtal tamit dégg nga min amri ci sama mbir usran ak jafeel Moussa daal di ko ne ko bu ma ërtal nag kii géré ma rek après ñu ànd dem loolu dootul Sahih Bukhari yonent bi doon wax léegi Moussa daal di delluwaat xoola mu ne ko léegi sax in saaltu an shay'in su ma la laajatee dara ba'daha ginnaaw ah ginnaaw bi falaa tusaaxib nii bul àndatee ma dàq ma a wàññeeku mu ne ko nag léegi nag xanaa xat balaxta xanaa jot nga nag min la du nii ci man na ko dara ngant fi nga maa pardonné nag léegi jox naa la léegi faveur somanal soo defatee dara man laaj la rek dàq ma man ma dem dootuma mën a ànd ak yow xalaat soo xam ne bul àndateeg man xadir ne ko d'accord ñu continuer di dem hajiran faya parce que mbir bii doon bëgg daal daanu nga ñëw defar ko mu taxaw ni ah yow ma dañ ta dañ la waroon fay loolu la ko wax qaala xadir nak hada firaq bi nak mom moy teqale ko bayni ni ba bay nag sama digante ak yow fi nak lañu yam duñu ma dootu mën a ànd quoi parce que yow da ngay wax te man sama mbir amul wax waxon na lu ñu andé lu moy def toogal rek dégg lu ci ne am na fu mo def léegi mo ne so way nak ba la ngay dem bala ma lay libéré di lay yee sama talibé nga woon waaye donte ne suñu ànd yagul way amna lu mara jang li la yàlla na moom ci mom pour ma xam deg ma uti tu min al ilmi inda qulli wa foofu kulli di ilmin ali léeg-léeg nga gis nit ko jàng ba am doctorat ba ci sharia la wax de mu dem ci daara ji fekk ñi jàng ndax dari sono ko ci yenn masale yu primaire yàlla mo mo mo do moo dogalee noonu xam-xam léeg-léeg nit jàng ba fees dell daje koo xam ne dina ko lottal lool dégg nga te coono yu mu dañ ci jàng ne yàlla moo dogal mu ne ko bay nii wa bay nag li mooy suñu taxale ko maa ngi mu ne ko nag bala ma lay libéré sama nab bi ko dinaa la dinaa la expliqué dinaa la xibaar bi tawili ci leeral maa loo xam ne lam tastati alayhi sabara mënuloo ko woon muñ yi nga xam ni da gis te mënuloo koo muñ nga xam ni boo ko defee rek nga daal di réagir dana taal ko mu ne ko am na safina bu dee gaal gi gaal gi fa kaana dafa nekkoon li masaakiina ni moomeelu ay miskiin maanaam gaal gi ma bëttoon xaram ko noonu dégg nga ba mu déet ay miskin bënd ko kon ay miskin a ko moom yoo xamante ni yaamaluuna fil bahri ñoom dañ doon liggéey ci géej gi maanaam ay navigateur lañ woon ci lañ doon daane seen doole te ñoom gaal googu continué woon buñ demee am na ñu leen di am na marine bu leen dogale dogaale ca xëy na am na ay kayit yu ñu mu nangu gaal te bu nangoo gaal gi dañuy dem wutiwaat benen gaal te defe naa wuti wutiwaat benen gaal wu gaal guy bëtt nga mën a jël aw bant rek mën koo fattaat def naa moo gën a yomb ngay dem di jëndiwaat benen gaal ne ko looloo tax ma ne ko fa arattu ana aibaha fa arattu ma daal di nam an aibaha ci ma ayibal gaal gi gis nga bii boppam la ko delloo an aibaha parce que dafa ayibal gaal gi moo tax waxul wax delloo ko ci yàlla waxul an yu أن يعيبها الله دير ملي أن أعيبها من ما عيبها بس كعيب تنيب لي جوه جوه تيا الله من وكان تنيكون وراء أو وراء كي نكنا ملي في الدنيا نيكون وراء أو تسين كنا ملك بور وخبي يأخذ ديجل دنيا كل سفينة بيبقى غصبا تكفرس ويا كون فوفو بور بري نعو قال من غني مارين boo xam ne mu ngi ca kanam rek buñ fa yegsee da koy nangu moo tax ma bëtt gaal gi nga xam ne ñoom bu ñu demee ñoom du ñu mën a jël gaal gi parce que gaal gi ayib bi ci nekk moom kon loolu leer na Moussa ne ko d'accord boobu moom leer na ko mu ne ko wa ammal gulaam bu fekkee ne xale bi ma rey fa kaana nekkoon na dafa nekkoon abawaahu ñaari baayam muminay ni di ay jullit yu gëm diine ñaari baay ñaari way juróom mooy papaam ak yaay ay jullit lañ ko woon yoo xam ni ay borom yi pas-pas yu dëgër lañ léegi fa xashi ñu ragal parce que lii ci lay jël ray ci yàlla lay jël moo tax waxul fa xashiitu bone bimne an aibaha ko ko wahi khadirha deng bimne fa khashina ko ko wahi allah la moy wahi do bale wahi nit la wa alquran dina tele wa an aiba fa khashina gina yalla moy wax mom an tanke yalla mo jëf fele khadir jëf mané ko fa khashina ñu ragal ay yurhiqahuma mu artal len tughyanan ci mbewte wa kufran ak wedd manam xale bi bu magol dana yóbbu ñaari waajuram ci kéefér ndax ni mu naroon màggee nit ku bon la naroon léegi nag rey benn bakkan mu dee dem sawar moo gën mu màgg boole waale yeneen ñaar ñëpp ñetti nit ñoo xam ñoom ñetti ñëpp dañuy ànd dem sawar ma rey ko ay <laughs> dégg an yurhiqahumaa tughyaana mu ne fa arad fa aradnaa ñu nam ma gis nga ñun yàlla an yubaddilahuma ci mu wotteel leen ñu ñu wécceel leen mu wécceel leen seen borom xayran yiw mel ko ci moom dégg zakatan bu sell wa aqraba raxman te gën a jege tamit ak yërmande tey xale bi day dee dee dem aljanna xam nga ay waajuram ñaar ñaar waajuram tamit bu ñu dee dem aljanna maanaam bu rëy bu xale bi xale bi nitu safara lay doon te dana yóbbu ñaari way juróom yëpp safara te bu deewee benn bakken boobu dee ñaar ñëre continuer dund ba seen waxtu dee ñu dee dem aljanna moo gën mu dundoon ñett ñi dund te ñett ñëpp bu ñu dee dem safara mu ne ko looloo tax ma rey mu ne Moussa ne ko loolu leer na mu ne ko waaw mu ne ko d'accord indil beneen bi mu ne ko amal وكان تحته كنز لهما وكان la ko nettali nii mu ne ak lii ma lay nettali nii mu ne tawilu mooy leeral maa loo xam ne lam tastati attanoo nga alayhi sabran di ko mën a muñ jëf yooyu ma doon jëf nga ni ma nga ni ma laaj explication bi lii moo taxoon ma doon ko def mais yow xamuloo ko foog ma leeraloo léegi nag mu ne ko mu ne ko léegi nag libéré naa la mën ngaa ngaa ñibbi نورو الاسوار كي خمن موي سيدنا موسى اك سيدنا خضر جدي ميدك Ahmadiyya yeesal Dine. ak Ahmadiyya la vision future